jàngoroy Covid 19 ñu gën ko xam ci coronavirus la ne xelu senegale yi ba tax na ñenn ñi ñemeetuñoo génn ci seeni kër dem ci marché yi ndugg yi bile situation jaaykat yi nekk seen marché Tilène commencé ko yëg bu baax ndax gisituñu ay clients. ah ñu ngi koy noo jaaxle nag nga xam nga ni boo jógee fii ba Sébikotane ñu yor sunu njaay mi ca gis ñu kenn ku ko jënd xam nga di nga jaaxle. da nga war a paas ñëw war a jënd añ war a jënd ndékki loolu na nga bëgg koo jënd te amoo loo yóbbu di nga jaaxle ndax feebar bi moo tax fi mel ni kenn ngootu la génn kenn ngootu la jënd ah xanaa ñu dimbalin rek ci feebar bi rek ñu ko mën a aare rek ñu aare leen ko doon ca dimbalin ndax fi mel nii xam naa def na yàlla na ko fi yàlla yemale daal. El Hadj Ndiaye di jaaykatu cosmétique fa ci marché Tilène di wax ne bi la situation bu continuer ñu mën a fayati seen i employés. non instant bi moom boo xoolee bu nekk ak instant bi moom bokkuñu parce que bu nekk euh, client ñëwee ba léegi gisoo benn client client yu bëri dañu ñëw ragal dugg si marché bi quoi. non lii moom bu continué woon di gaaw duñu arrangé moom bu continué moom instant lii moom bu jeexoon moom du baax si moom marché bi moom du baax si marché du baax si yëpp du moo Awa Ndiaye ñu fekk ko muy ndugg biñ ko laajee moom nee na mënul ñàkk bañ a génn ndax bu génnul lu am lu mu yóbbul waa këram. gis nga de comme ni ko ñëpp gisee gis nga marché bi dafa vide xam nga feebar bi ñuy dégg ci dëkk bi moo tiital ñëpp waaw ma ne ko moo tiital ñëpp moo tax genn wàll gi ñëpp ñëwatuñ marché. ah ragal naa mais comment faire comment faire parce que fu mu nekk nii ñu am ñi dem nañ ndugg def achat bu bari dugal ko seen kër par rapport ak ñi nga xamante ne dañoo ñàkk. yaangi deg dégg ñooñu rek la mëna obligé sax ñu ñëw di taba taba di nugu nonu rek mais ku ne febar bi japp ko day wax lu ko neex waaw febar bi nak mom metti na kep kep kuy julit waxuma la julit sax kep kuy nit rek febar bi war na la mëna met commerçant bi mom xalaatam moy ñene ci client yi dañu jéggaani ci supermarché yi ndax daw dajalo bi ci marché yi. non actuellement client clients yi ñëwuñu constaté na ko semaine bi ni dama yaakaar ni gars yi est-ce que demuñu Auchan tey roog maa ko doon waxtaanee sama benn booy. ah parce que fii dafa bari rassemblement presque fii presque plus de cent personnes dañ fi daje ma yaakaar ne clients yi est-ce que duñ dem ay Auchan yooyu noonu. bu ñu wàccee dugg noonu parce que foofu contact bi du bari quoi mais fii y a beaucoup personnes. coronavirus di wéy di law fii ci Sénégal ba tax na ñëpp di jël seeni matuwaay ngir mucc ci bile feebar.